فارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب wala tatlubu alkarama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa altaqwa wala tatlubu al'izzata min gayri alazizi almu'izz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi al'az fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwaa tarakahu maa nafsihi wa hawaa wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa alwasila qaada ilayhi kulla maa kaana yartaqi ilayhi min aljamiila yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakum ittaqi llaha xaysu kuntum man kaana yuminu billahi wal yawmi l-aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut laqad axbara rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallama wa baaraka axbara ash-shaykh al-xadiim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 bokki jullit yépp ci jaamu yàlla bu mag gi nga xam ne ci lañu bàyyi ko muy shahru ramadan al mubarak mu ngi ñaan suñu boroom lañ ca jëf mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu te it yàlla bu mu doon suñ mujj koor yàlla na ko yàlla làqal fu yàq du yegg mu wax ne nag koor gi jàll nag jàmm waaye taxut jaamu yàlla jeex ndax koor ci ab jullit daf koy jàppe rek euh, daara xam ne dañ koy ubbil ak mu nekk ngir mu caa nafar ak dundam bokk na ci liñ ciy nafare nag wéttilikoo yàlla bi nga xam ne moom la suñu borom tëje aaya bi farataale woon koor yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun wéttilikoo boobu jàmm bi wéttilikoo boromam bu ko nafaree ci koor gi daf ko war a tàmbali yoon dund bu koor gi jàllee ndax suñu borom mi nga wëttalikoo ci biir koor bi ba bu duggee ci ab néegam moom kenn mu nekk fa lu mu mën a jëfandikoo ci aw ñam nekk fa mu a jëfandikoo xam ne yàlla muy wëcc la foofee mu bàyyi ko fa te yàlla tax na fexe bu koor bi jàllee lépp lu muy defati ndax xam ne yàlla man ko fay wëcc mu doon ko wattandi ci biir koor gi it mu fes yéene bu koor gi jàllee it mu nafar ko ci koor gi jëmale ko kanam ay gëtam noonu ay tànkam noonu ay noppam noonu ba cëram yëpp mat yàlla na ko yàlla dégg loolu mu mel nag koor e, doonul luy wéy noonu rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bu ëllëgee euh, ba ñu dem aljanna am na fa bunt boo xam ne yàlla mën ko fa bàyyi woorakat yi euh, inna li jannati baaban yuqaalu lahu rayyan yuqaalu yawma alqiyamati ayna saimun fa ida daxala axiruhum uxliqa dalika albaab bunt la bopp li àjjana yi neex neex moom dañ ko fa bàyyi woorkat yi fa la ñuy jaar dañ leen di wutal ay xàmmikaay yoo xam ne ku bokk ca ñoom du mën a xam mandarga yi ñu woote yàlla ci yàlla boole suñu waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dana la wax dana la wax ne ki woor am na yaay di dégte yu koy ne mel na mbégte mi fii ci kaw suuf la bëccëg bu tàng jër ngelaw lu tàng jër ndox amul waaye bu ñu demee ba naan juróomi minute wala ñaar moo des ci ndox mu xool yi ñu dogo yi teew bañ ne dog leen ku ne xam ne mbégte moom kenn moom rek moo ko xam waaye nee na yomal xiyaam day raw ndax bu ëllëgee bañ naan ñi ma waroon nañ ñëwee ni ak xéewal dafay balde di gën su boobaa yàlla na ci yàlla boole waaye dara déwén dañ caa kon suñ koor boobu yàlla na yàlla na yàlla boole ci ay gëj yëpp moom lay wax na lisaani farxataani yafraxuhuma ida aftara fii ci àdduna farixa bi fitri wa ida laqiya rabbahu farixa bi sawmi waaye suñ ko mag bi ci ay mbindam am na xasida boo xam ne mi ngi ko tënkee fii shahri ramadan ama alsasin ama alsasin nag ci at yi gën a ràññ koor mille neuf cent treize la woon daje woon ak weeru août nit ñi dañu ko siyaas yi fa euh, njëriñ ñenn ñi wan sa lool wan takk ndax am na si xam ne ndox la leen doon jaaxal xadd di leen jaaxal ba boo leen gisee xam ne ci coono yu métti lañ jógee sëriñ bi nag di leen dëgëral ci coono yooyu ñu dajoon di leen xamal ne du neen du neen daal di bind xasida boobu fukki bay ak juróom jaaxal ñu ko tënkee fii chahri ramadan ama alsasi mooy weeru 1913 dañ ciy indi rek ñetti bëy yoo xam ne war naa dalal xelam ku doon ko tàmbalee faaza alladina xaafazu ala siyaam shahrin bii ughliqa baabul iyaam ñi nga xam ne ñoo woor weer yi koor yi ba jeex ak coono buñ ca mën a daj yàlla defal na leen lañ doon lañ doon wut lañ doon bëgg defal ko lañ fi ko jël yàlla may na leen yàlla ñu dal ne ñi sonnoon lool ci biir koor gi te amuñu luñ doon doxee yaraw naa axbaar su tóorin fil xubur bis bu seen euh, ak mu tàggoog seen jëmm ba ñu fab leen ba leen seen borom danañ fa gis ndoxu dàq fuuf li waroon doole yi ñu fii ci waaye yow ak yaa ma lay daw ndax dañu tase payu koo xam ne بالجهرة يرون أكبر الفطور في القبور وفي القيامة من النور الكبير dal cay teg nag loo xam ne moom dégg ko jar na umaan wala weeru koor naa suba nee na suñu borom ñu bind mbindeef yépp ñu ngi jël mbindeefam yépp di leen seereel ne ngërëmoom day sax ba faw ci ñuy waroon waaye yoon jeex shahida xaaliqul waraa fi ramadaana bi ridaahul qaaimin kon bokk lañ ca def mu mbir mu bari yàlla ko suñu borom nangu te bu ko doon nangu yonent bi du jàngale jàngale moom ci jàngale sëriñ bi du ko leeral njabootam bi ñu ko leeral kon ñu xam ne gan gu fi daawoon du dem gan nag kenn mënu koo euh, lu mu néew néew lenn muy nett bi aw yoon ñam fa fekk ak leen fa nekk woon ak moom yàlla na yàlla dimbale ba bu mu ñuy nett bi mu doon lu su ma la fu nekk mu mel ni nangu euh, koor yàlla rek moo xam mooy matukaay waaye ab jaam mën na daa am ndam jaamu yàlla yi nekk woon ci biir koor bi ak pas-pas bañ ca amoon ak yu baax yañ ca doon def bu fekkee koor gi daa jeex jàll nii mu jàll ñu gën a sawar ci jaamu yàlla loolu ku mu dal mën naa rafet njort ci ne kooram yàlla moom la waaye nag su fekkee dafa delluwaat ca maniina laa ko ñuy woor war naa seetaat boppam waaye mandarga yi wane ne koor gi nangu na moo jaamu ci biir waaye itam yàlla ñu ci ak dimbal juróom-benn yoo xam ne nu mu ko defee baax mel ne ku woor des ci àddina ci ay bés yëpp moom rek sëriñ bi ne dañu bàyyi wala sa lool kon loolu moo doon moom bu njëkk tomb ñaareel bi nga xam ne ci daal jeexal nag sëriñ bi ñu ngi dénk ci ndigalu kilifa yépp ñu waajal liggéey bi ñi nga xam ne seen liggéey daa gën a ci suuf si ñu waajal ko te yaakaar ci yàlla te fas ca yi ne jaamu yàlla te fas ca doom te ñaan yàlla mu defal nu ndox mu jàmm mu mu dundal te la muy dundal di ko saxal yàlla dimbali ñu muur loo ko te fekkewaat koor bi ay ati ati at ñi nga xam ni yàlla dafa dogal seen seeni fan yamoon ci biir wàllu kaw yi yàlla na yàlla di jéggal ñëpp te teg ci euh, loxoy jaboot te bàyyi leen fi dama la seen naaj yi nga leen fi dëddu sëriñ bi nag ñu ngi dellu di ñaanal euh, sëriñ Touba sëriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te yàggal fi it sëriñ Abou Baraka ak mbooleem njaboot képp ak mbooleem jullit yëpp. te def jàmm ci réew jàmm bu sax lu yomb ci moom la yàlla ko def kàddu yooyu bu waxoon rek nañu ko ko jottali xam naa ne ci di koy mottali te genn kàddoom mooy gën sama téeméeri ci lam yoon tey lay bàyyi ko yooyu daal lañ jot la loolu moom nag mooy naam mooy doon li ci yoon bi loolu laa am la amoon di jot yàlla na ko fexe bu leen. yàlla na ko suñu ko am. te bu fekkee ko yàlla na ko am. gannaaw bu sant yàlla ci ñaari ñu ñaawoon naa fekk ko am. yàlla na ko fexe bu leen. ñu ko sant ci ñaari ñaari ñu may ñu ko am. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh. alhamdulilah. amiin. amiin.